dikkati naa opposition bi am na majorité ci assemblée nationale leer na waaye troisième mandat it président de la république Macky Sall xalaatatu ko ci réew mi tribune yéen a kaay dama campagne NTM bu Bougane Gueye Dany ba day dafa joxe daal di faagaagal ay plan yu président Macky Sall campagne boobee ñu duppee non au troisième mandat daagu dugg ci biir réew mi daal di wax askan wi woteel leen ku leen neex ba mu des Benno Bokk Yaakaar renfort la woon de boo xam ne nag amal na njëriñ bu baax a baax opposition bi tax na ma na def manda mandat am déet waaye loo ci manti dégg troisième mandat bii moom président Macky Sall xam na dëgg-dëgg sénégalais ànduñ moom tribune yéen kaay na ma bi moo am majorité ci assemblée na waaye nag ngir ger ñi ne tabb nañ leen yees député ngir ñu bàyyeekoo ci opposition ba mën a dem ànd ak ay gaayu président Macky Sall ngir ñu am majorité wax moom walloo ko investir nekk na député de waaye laataa élection yi enquête quotidien mel ni ku naan man balaa ngay régler loolu demal ci guerre bi ba ndax opposition ak pouvoir bi ñoom ñoo yam ku ci nekk ma nga naan moo moroomam yéene kaay bi ne ma faf sax dañoo dem ba tolloo Benno Bokk Yaakaar xam na ni juróom-ñett fukk ak ñett ciy député la am yaaw ak wàllu tamit xam na ni lu ni mel ci lim la ñu am yaaw ak wàllu xamle na ni assemblée nationale présidence ba ñooy njiit la moom Mimi Touré na ñoo am ndam am fu ca defee nag ay erreur ak sikki su quotidien daal di dox kàddu waa grand rek gi day li ñuy def tegunu ko ci yoon ndax warta taxaw di joxe ay résultat yoo xam ne définitif yi génnagul yéene kaay bi daal di may xam le ni bras la de diggante nguur gi ak opposition bi le soleil ne loo ci manti déggit suspense bi moom mi ngi taxaw rek gaa ba tey kenn xamul kan moo am majorité ci assemblée nationale bennoo bokk yaakaar moom dese na mbuur dese na Kaolack dese na Louga dese na Kolda ca diwaanu Ndar Géej Sédhiou gudoom puti waawoon daal dinay tàbbi ca l'opposition bi fa yàllaahu waaye ñe doon saytu élection yi ña ngay rafetlu de Sénégal na mu organiser yi organiser élection yi ci réewum Sénégal le quotidien le quotidien na ma waa walu day xam nañ ni fuqati seen ndam lii la ñu nar moo tax ña ngay woo seen ñooñ ca mbedd ma wal fu quotidien daal di may xam ne ni moom mi Touré day chiffre yam waxoon dellusiwaat na ci ginnaaw ndànk source a daal may xamal ne ba saa si tembeer mbir mi fi mu toll mi ngi juróom-ñett fukk ak ñaar ci député la Benno Bokk Yaakaar am moom yeewi askan wi ak walu daal di am juróom-ñett fukk ci ay député ñetti coalition yi ci des ku ci nekk benn député nga am ba démb démb résultat diaspora yi lañ doon xaar ndax loolu moo mën a taqal ne opposition bi waaye leneen la leen mën a tàqale yéen kaay bi daal di may xamal ne mooy nag Papa Djibril Fall Papa Diop ak Thierno Alassane Sall dem fekki opposition bi ndax nag yàggul dara ñoom opposition beeg Ousmane Sonko ñoo doon xas ñooñu naan leen président Macky a sol ngir ñu am ndax daañu ko mën ndax laataa moo am faw jéggalu am vox populi ne ma Déthié Fall day xam leen na ni juróom ñett fukk ak ñett ciy député la am kenn mënu koo dindi le la wàllu ngóor jigéen waxuñu ci yeyuñ ci yàbbiwuñ ci troisième mandat bi nga xam ne nag gars waxuñu ci def noppub tëx ak itam injustice bi ñu jàpp ne mi ngi samp ci réewum Sénégal wax ñu tëj la kumba am nday ak kumba amul nday moo am ci réewum Sénégal l'observateur ne ma moo taxit ndam li ndamu askan wi la de askanu réewum Sénégal ci boppam ñoo sanctionné ndax nag neexul ba neexul yéene kaay bi ne ma ñoom Sénégal injustice la ñuy bañ Lamine Thiam ci libération yéene kaay ne ma waay waay nangu leen ndax teel nangu day yombali duma cohabitation bi nga xam ni moom ngeen bañ dub gàccee yóbbu nañ leen ci opposition parlementaire ci mu leer Khalifa Ababacar Sall ne leen mbir yi de mi ngi fii dëgër këcc nag te mënu leen koo teggi ñun ci boppam ñoo gañ a yile élection libération daal di may xamal ne neexul ba neexul waaye président Macky Sall day war na xoolaat ay ditam te Thiès Idrissa Seck Yankhoba Diattara Augustin Tine Siré Dia Habib Niang ñoom ñëpp la ñu boolee rokkos ci gënn ñu daal di ñàkk yile élection Vox Populi daal di may xamal ne moom président Macky Sall day ay nitam fanu sakka nee foofu lañ leen gañee ca Médina ca Parcelles Assainies ca Kër Massar sa Thiès ca Géej géejawaay ca Louga commune ca Kolda commune ca Ziguinchor ak ci Kaolack commune turbine yéen kaay ne ma dafa mel ni nag gaay opposition bi boo leen tooñee dañuy bàyyi ba nga mat fukk ñu boole duma yéen kaay bi dee média bi ne ma baraayaa dem na dóor nañu ko Mayora Faye dem na gañe nañu ko Bella Diallo dem na gañe nañu ko Bamba Fall transhumé na gañe nañu ko Diatara dem na gañe nañu ko Cheikh Bara Dolly dem na gañe nañu ko Amadou Diarra transhumé na gañe nañu ko Alioune Mar na gañe nañu ko Daour Niandiaye dem na gañe nañu ko yéen kaay bi ne ma transhumé ci boppam la Sénégalais yi ravage dóor leen lu amul fenn l'évidence yéen kaay ne ma boobu ci ñoom day am na ñoo xam ne nag def nañ ca ay jéego moom Cheikh Omar Anne loo ci mënti waxin njum moom yëfa ma Dame Diop ak Pape Modou Fall ñoom ñoo sooye waa Bennoo Bokk Yaakaar ba ñu am ndam ca diwaanu Jurbel Ndofaan Samba Ndiaye jox ndam la Bennoo ca Sine moom tribune yéen kaay di may xamal ne waa Bennoo Bokk Yaakaar am nan fa ndam lu rëy ak loo mënti waxit Sine moom président Macky Sall moo ko moom yëfa ma tribune yéen kaay ne waaye terewul de waa Bokk Yaakaar seen diggante ak këru diine nag ñagas na ci réewum Sénégal Sénégal réeroo am na ci ñaawoo am na ci ca Touba opposition la ñu woteel Tiwaawan opposition la ñu woteel Kaolack opposition la ñu woteel Yoff opposition la ñu woteel Njaasaan opposition la ñu woteel Poroxaan opposition la ñu woteel Daaru Musti opposition la ñu woteel Cambérène opposition la ñu woteel bés bi le jour daal di may xamal ne ñaar ciy fauteuil ngi nii de xëccoo bi dana metti lool muy bu njiital assemblée nationale ak bu premier ministre ndax na ku ca am majorité mën nga jël ñaari fauteuil yëpp vox populi ne ma Mansour Faye nangu na ni ñàkk na de waaye du bàyyi waa Ndar xamle ni it moom it ñàkk na ndax commune nu moo bari vox populi ne ma na lum ca liggéey lii quotidien sampub laaj diggante opposition bi ak nguur gi kan moo ca am dëgg ñii yéene kaay ma en tout cas waa moom ña ngay àttu gu réewum Sénégal nee ñu nangu ndam li ci ñoom kenn ci boppam du ko nangu l'info yéene kaay ma Idrissa Seck daanu na de waaye félicité na ñëpp sof ña daaneel le vrai journal mel ni kuraan man bu lëg lekkee alam naka gëlëmee cooy coow li coow li ci biir opposition bi nag waa ji diggante ak 2022 Ousmane Sonko juróomi at juróom ci réussite moom Ousmane Sonko def na ko ci at wu ci nekk ci législative 2017 yi mu daal di cay def réussite bu doy waar mars askan wi génn xeexal ko local 2022 moom Ousmane Sonko mu jël bu Ziguinchor législative mu daal di forcer cohabitation bi tribune yéen kaay lu mënti am daal bu leen fàtte ni moom Moustapha Niass daal dinay jeexal ci assemblée nationale waaye laataa muy dem lu jege fukk ci député yu mu àndaloon daal leen di yóbbaale Ndiagne Diop Aymerou Gningue Jean Baptiste Diouf Ndeye Fatou Diouf ak Awa Niang Déthié ci laas ney la leer ba leer moom mooy ñu ñooy majorité bu yees ci assemblée nationale Sud Quotidien daal di may xamal ni élection yi lu mu rëy rëy jàpp ci njàngat yi moom moo di maître Abdoulaye Wade nag dikkam gii daal dinay am solo lool sénégalais la sànn ci mbañ gàcce na ni moom président Macky Sall bëggaluñ ko ñetteel bi mandat beneen bi moom maa yi ci boppam sénégalais xamal nañ président Macky Sall ne bëgguñu leen beneen bi moom moo di yeewi askan wi am na ndam ci ndakaaru Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Dias yëkkati socialiste ba biir weex teg ci suuf laas yéen kay dema bul daaneel jàppal ni intersyndical bu seen oo day ñaari fanu gréew décrété ci nañ ko ak lu mën a am mbokk yi nañ ñu yendoog jàmm